président Ousmane Sonko na gagne euh, King Fat Palace de toute urgence pour les raisons de confidentialité et de discrétion. mbaaxee sama mbokku Pastef yi suñu gouvernement Le premier ministre Ousmane Sonko jóge na hôtel Azalai ñëw King Fat Palace pour def ay consultation euh, ci jamono je naa ko prévenir parce que woo naa sax Jibi Gueye Ndiaye jotuma ko mu yónnee ko message mais def naa ba léegi liiragu ko message bi li mu ci doon wax rek mooy euh, président Ousmane Sonko na génn euh, King Fat Palace de toute urgence pour les raisons de confidentialité et de discrétion parce que foofu laa ci mënoon a yem parce que hôtel la boo xam hôtel bu ñu la man day su ma doon fanaan duma ma je sax summeeku sax sangu parce que Woro, c'est truffé de renseignements généraux te Racine pourquoi ma njëkke ko parce que dafay fëgg ci buntu gouvernement bi dafay fëgg ci buntu mouvance coalition parce que def na déclaration publique ni moom du opposé wu dafay jàppale nguur gi donc nguur gi je ku ma gis mu jëm te gënul ci man ma rek publiquement jox leen ay piste d'investigation ñu yër foofu ba xam ndax li may wax yenu na maanaa wala yenuwul maanaa parce que moom nee na daf leen di jàppale donc man bëgguma ñu dugal euh, loo xam ne day nekk suuf ci seen machine wala ci seen cere donc moom moom ak tubaab yi Bolloré benn lañu te euh, président Ousmane Sonko vraiment yéenewuma ko Tout le monde ci moom loo a day de pression ci ñoom parce que moom dafa bëgg souveraineté dafa bëgg souveraineté monétaire dafa bëgg réviser les contrats kon loolu weesu ça. parce que nekkoon na fa ba pare def na fa ay consultation def na fa ay dajeem que don ministre de l'intérieur ci système de surveillance israélien yi dugal fi bi ñu koy junj lii laa doon xalaat parce que ñoom fépp la ñu miine fépp partout partout la ñu miine donc euh, loolu mu ngi suñu gannaaw. Euh, d'ailleurs hôtel bi euh, temps yi rek lañ ko condamné le 29 janvier bi passé régie wane acte de condamnation bi mu war a jox dàmpaay benn société lu tolloog 340 millions donc bu ngeen xoolee date bi. 29 janvier 2024 Yagoul. yagoul parce que nous condamne l'hôtel Kinfat à payer 339 millions de dollars euh, principal à, la société Millennium Transafrique donc lolo euh, pour vous rek c'est un hôtel qui traîne beaucoup de casseroles le rôle euh, Racine si